production présente. waaw ba tey euh, mbokk internet ñi nga xamante ne yéen a ngi saafonteeg euh, Gaston Production ak euh, Post Afrique euh, ba ñu ngi leen di jëlal li xew te jii nii ci journée 28 novembre bi ñu ngi leen koy rappelé Gaston Production six grandes affiches la indi tey di ngir boole jeune yu bëri ci journée dimanche bi ñu ngi ànd ak nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes promoteurs yi ñu nekk di liggéey ak waa Gaston Production ñu ngi leen nuyu bu baax. waaw ñoo ngi lay fay soxna si di rafetlu intervention bi vraiment di wax ne kontaan nañu ndax xam nga tey bu Gaston defee affiche yu mel nii woo ñu ci ñun ñi nga xam ne ay doomam lañ ndax moom bokk na ci ñi nga xamante ne bi moo tax ñun ñu bëgg làmb donc su dee tëgg làmb sentir ñu ci woo ñu ne ñu kaay leen jàpp ci lu ñu mën a def lu ñëw teewaay ànd ak sama frère yi prési production sam production Mor Mbaye fexe nag indi attente bi mu ñu doon xaar ci ñun fexe ba li mu bëggoon ci ñun ñu am ko ci muy jàppale ko ci organisation bi suñu xam-xam bu néew buñ ci am di wax ne kontaan nañ tam ci liggéey bi ngeen di def ndax gis nañu ne or mi làmb bi muy tëgg indi na benn système boo xam ne moom na teg muy Gaston production bi di ko doxal di def kéem kàttanam ngir làmb gën a jëm ci kanam ndax su ko neexoon mun na bàyyi dem toog mais mi ngi jéem a dimbale xale yi nga xam ne ñoo ci nekk kon nag loolu c'est des gestes à magnifier et à saluer aussi donc vive Gaston production et les jeunes promoteurs la promotion de la lutte jaajëfal yow nag euh, yow li ñu la bëggoon laaj rek mooy euh, malgré contexte bii nii euh, ñu nekk ba tey sax jóge wuñ fi ndax coronavirus bi ba léegi ñu ngi am quelques cas yu ñuy signalé chaque jour nga gis ne structure Gaston Production tey jii nii il n'a pas lésiné sur les moyens ngir gën a mën a jox jeunesse bi ay ay ay liggéey loo ci xalaat. waaw sant yàlla rek tey lii mu def comme ni ko Kandji waxee rek dañu koy ñaanal. parce que tey boo xoolee ci ay euh, sortem yëpp day sensibiliser nit ñi di leen wax ñu moytu xam nga di leen yor seen ay masque xam nga mesure barrière yëpp mu ñu koy wax kon kooku jëlu làmb ji rek daf ko maanaam di di xool intérêt daal wax dëgg yàlla kon dañ koy ñaanal yàlla rek mu yàgg mu àggale feebar bi tamit ñu ñaan yàlla mu jóge fi ak jàmm parce que tamit yàgg na waaw yàgg na nan ñaan yàlla mu jóge fi ñu mën a àggale activités yi promoteurs yi ba àggale seen journée yi xam nga neexaat wax dëgg yàlla moom la ñuy ñaan yàlla. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax mais nag damaa bëgg ci groupe bii nii kenn defal ma ci euh, pronostic euh, bi nga xamante ne moom mooy combat Zos ak Aliou Seye 2 <laughs> ah daa mel ni yoon nañ ko <laughs> waa ñu ngi nuyu waa site bi Gaston Production waa di rafetlu li mu def parce que comme li Kandji wax rek du ko neexoon moom mu dem toog parce que li ko waroon ci lam yëpp def na ko. mais fii mu ne mi ngi ñimeloo xele yi di ñimeloo senes bi nga xamante ne ni ñoom ñoo bëgg làmb pronostic bi nag benn la xam nga ñun promoteur mënoo pronostiquer cent pour cent mais en tout cas daal li ma la ciy xamal mooy ku jum daan waaw. waaw <laughs> dafa am lu ci laxasu muy diggante Zoss ak Alioune Seye. Zoss dafa bàyyi woon. ba yàgg yàlla dogal mu ñëwaat. Zoss bukkib guddi la boo ko dàqee sa gétt bul tëdd day ñëwaat. te xam nga dafa am ñoo xam ne dañoo nekk ci làmb am ñoo xam ne làmb ñoo nekk ci moom Zoss làmb moo nekk ci moom parce que ñun bi ñu doon ay amateur di seetaan lañ seetaandoo ak Zoss mais Alioune Seye numéro 2 bokk na ci mbër yi dàq bëri ci làmb ji am na yar am na teggin respecté na adversaire am carrière am moo tardé ci li dogalu yàlla mais dans les normes waroon na romb fii moo tax tey nag ku ci sàmmut say arrière bu sàmmut ay tànkam bu ko Zoss di bët du ko yëg Zoss tamit bu deful ndànk bu ko booy bi di ñëw du ko yëg waaw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. salaamaaleykum euh, sëñ bi. waaleykum salaam wa ñu ngi lay euh, ziar. waaw euh, yow nag lu ñu la bëgg a laaj mooy tey yeneen trois affiches mooy combat yu ndaw yi nañ ko mën a tuddee yu Gaston jiital dañoo bëgg a xam ci mbër yooyu noonu kan moo ci gën a mën a am avenir ci làmb yi. yu ndaw yi. waa avant maa ngi nuyu sama papa Derso Mbeg ndax lii mu def nii comme ni ko Kañ waxee. moo tax ñun ñu bëgg làmb bu ñu demee ñun bëgg làmb bay organiser làmb ba tey nga ñuy dékk micro ngir làmb teer dajee suyee lu bëree bëree bëri kon nag bu yàlla dogalee loolu ñun ñu ñëw fii tey jàpp ci journée bi nga ñëw dinu laaj en tant que garson euh, pro garçon garçon bi dañ ci am contentement li nga ma laaj nag mbër yi mooy mbër yu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo tëgg ci combat yu mag yi. noo bari na ay xale yoo xam ne ay xale yu doy waar am na benn xale boo xam ne mi ngi dëkk côté euh, fële nu koy waxee Tiwaawan xale bu mën bëree ngoogu parce que seetaan naa ko ci àll bi xale bu mën bëree ngoogu am na beneen xale boo xam ne mi ngi nekk ci écurie booy ñaa bi booy boobu xaj na sax yàggu ci làmb mais phénomène làmb la parce que buy buy buy buy signature da nga koy gis ci ay ci ay waxam ay communication ak yeneen ak yeneen Alioune Seye numéro 2 nag ak sos combat bu doy waar ngoogu parce que sos bu timis la saa boo ko daqee ci bu bul nelaw day ñëwaat. Alioune Seye de nekk na mbër moo xam ne xale la boo xam ne bàyyiwut kenn bàyyiwut benn mag mu mu mu koy mu koy fontoo mag moo ko booleel baat ak tontu lay doon bu la nga daanu dina la mboot mboot moo xam ne maar day taal yi kon nag combat bu doy waar la per per per per tëgg beneen combat muy pakala ak forsa mas nañ bëre combat boo xam ni combat bu métti lañ bëre. pakala gañe mais attention nag tey tey dinañ xeex maa la wax loolu. ah loolu nga gis. maa la wax dinañ xeex. mais nag na na na na na na forfa la ko sawaay daan parce que daa topp xeex bi ba sawaay daan ko combat bu neexa ngoogu macha allah toog na jërëjëf kontaan naa nag jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal maa ngi nuyu sama doomu baay production présente